bëgguma góor guy man bëgguma góor guy guy kof-kofi góor dafay gaaw mbaa mu luxus ah mais Youssou nay bi mu wax nii moom moom moom moom jikkoom la woy rek Youssou Ndour ba ma juddoo ba léegi mës nga dégg ñu ne Youssou Ndour moo jënd lalu hôpital bi mës nga dégg ñu ne la Youssou Ndour moom moo dem maye concert bi pour gratuite pour néew di doole yi mës ngeen dégg ñu ne Youssou Ndour moo jënd comprimé bi. bu ñu bu ñu góor moo warul nay bu kenn kalaas sama bi waaw góor moo warul nay lu mu mu lu mu way man dam cee ànd da ngay gaaw. yoruñu jigéen jigéen ñi ñooy déconné sax xam nga di bëri ay problème jigéen matul ku ko yor yaa moo tali war kaa comprendre sincèrement. am Youssou Ndour ba muy woy ba tey musul maye concert gratuit ñoo xamante loo am ba pare mu ne góor ñi dañoo nay comme moom moo njëkk a nay ñoo xamante loo am. Youssou Ndour yow yaa ngi yor ay milliards tëdd si doo may conseil gratuit ngeen ñoom dañoo nay moom moom daal si moom lay njëkkee nay bi moom moom mooy premier numéro un. mais jigéen non lan la lim ci woy mooy nañ ko dañ leen defal ñu di leen jox ah jigéen moo ñu jur jigéen mooy suñu yaay. ñëpp a nay góor ñëpp a nay te nay baaxul. Youssou Ndour moom li woy moom dafa neex trop trop ku ci bis gis sa bopp rek da nay nag góor gu nayo doo ci gis sa bopp mais góor gu ci gis sa bopp rek ku nay nga te nay du dëgg aajana te nay du dëgg aajana. ah man moom Youssou Ndour du ma ko déglu man moom ñi xew laay déglu nongolo ba mu bàyyee laa gëj a déglu sax musique ndax bu doon dund ba tey kenn dootul déglu ñi fi ne. góor warul nay daal waaw man de kalaasuma ko ma koy nuyu waale bu baax di nuyu doomam Birane maa ngi lay nuyu bu baax. li ma si xalaat mooy mooy lu mu si wax yëpp dëgg la moom. dëggantaan Ndiaye waaw. góor ñi naqar nañ déet waaw mooy loolu te defaruñ benn jigéen dara. yow jeunes yi nga xamante ay xale lañ di takkale am ku ñu bëgganteel may wax mu naan ku ku la joxul euh, demal sa yoon. nay looy woyee nay yow yaa ne boo amee benn yemal si benn boo amee ñaar yemal si ñaar moom du yem yow Youssou Ndour mos koo gis muy def affaire don. moom bu ko woyee jàpp na ni xëy na mooy ñiy nekk euh, góoru responsable te seen biir kër yi te duñ defal dara seen njaboot yi yaa ngi dégg di jaay sàmba alaar waaw Youssou Ndour moom si li mu way man dama jàpp ne li mu way way la mais képp ku si sa bopp dama jàpp ne yow soit góor bu nay nga mais góor bu nayul au fond di xam ne carrément way bi man moom ma ko mais yëpp neex na mais nay bi pour man du dara quoi nay nay mais ak am pisam la mooy nay buñ génnee di jaay jooma ñaawtu buñ nekkee seen biir kër duñ defal dara seen seen seen jabar yi ak seen doom yi yaa ngi dégg ak ño xamante ni dañuy gis jigéen yow nga yor mën koo jàppale doo ko jàppale yaa ngi na xeyna mom lolay waxee mais Youssou Ndour xeyna na mën na ko pour ñep nak ñep yamuñu. man yalla dafa def ni man Youssou Ndour duma ko déglu son bi ni mu mujjé sax la dégg xalé diko sinap diko duggal dugal xam nga ñu ci nekk di wax ma jël euh, son bi déglu ko mais lim ci wax mom ci bopam xamuko parce que gaay ñing ko koy tégalatal ay sinap yenen yo xamanteni da ma fekkee fu Youssou Ndour tëggee concert may ko senegal yi. parce que maa ngi dégg benn gars di ko tontu nan ko yow Youssou Ndour 41 ans def nga ko carrière si way musoo may soirée gratuite kon Youssou Ndour kon kooku yow lan lañ ko mën a tuddee man daal dama jàpp Youssou Ndour man waxul man dama part te man sama jëm kon Youssou Ndour képp ku gis sa bopp si nay rek non yow lay waxal. mais day wax tout juste ñi nga xam ne dañoo am te yor ko mën na mën a defar jigéen te duñ ko defal loolu lay wax ñu dañoo nay loolooy nay soo amul dañuy xam ne amoo mais ñi am te bañ koo defal ñooñu lañuy ñoo ñoo tax ñuy wax waa ak góor ñi xam ne dañoo yor njaboot yor doom di génn di tapar pasar para seen mbedd di di jaay jom ma ñaatu bu ñu génnee seen kër luñ lay laaj ñun nay te alors que yor nañ Youssou Ndour foofu lay waxee léegi nag ñu bëgg nag euh, ñu bañ see ñu bañ see gis seen bopp Youssou day way rek ah man moom daf moo ko arme moom franchement parler moom bon Youssou Ndour Moi, euh, vraiment moi, le ah, un docteur c'est un agrégé en musique c'est quelqu'un qui il s'est il créé des il créé des événements il s'est créé du buzz Bosser, il nous est venu avec les réseaux sociaux ça mais musuma gis sax mu yëkk di million dem ci hôpital bi non na leen am leen pour les cas sociaux man musuma ko gis. Youssou Ndour leen la musa maye muy kiyam boobu mu jëloon Japon ñëw may ko musiciens yi les soixante quinze quinze millions yi ma Youssou Ndour ñooñu jëmbale Youssou a gën a nay ñëpp. <laughs> nay métti na méttiwul de <laughs> mooy li mu ci rek <laughs> kuñ ci xas ku ci xas góor ci xas rek ah neel garab bi daa jeexal rek amatul lu mu way quoi moo tax muy ni nay. yow doo bàyyi Youssou Ndour nga nekk fii naan ay yemal si benn ak yemal si kii yow yaa tax benn xale bu jigéen ñëpp a ngi tas seen sëy yi da nga réglé de.